2007 dañ fi amone ay assises nationales assises nationales nak dafa woné won ni sunu réew fi mu toll war nañ ko état de droit ci mbirum démocratie ak ci mbirum gouvernance force vive réew mi ñoo ba àndandoo seen kàddu nekk benn ñu tuddee ko conclusion assise nationale conclusion yi nak ñaari fànn ñoo ci gën am solo pour ñun bu jëk bi mi ngi joggé ci assise même mi tudd charte de gouvernance démocratique bi ci top dafa top ci assise yi maanaam ñu ko tuddé recommandation de la commission nationale de réforme des institutions ñaari document yooyu lañu bëgg teg ci tey sunu loxo ba réew mi ñu jéem seet nuñ koy defaraat ba li fi xewoon bañ fee mën a xewati maanaam mayore nguur gi lu ma neex lay def lu yoon mbaa mu dul yoon li ma neex moo am solo sa yoon réewu yoon yoon ñëpp la tego ñëpp a yem ci yoon kenn amul droit di wax ni yoon lii lay def man la lii lay def boo dee ne même njiitu réew mi amuloo droit def loolu loolu la lañu bëgg a taxawalaat ba yoon di dox ci dëkk bi leneen bi mooy mbirum démocratie ak liberté yi dafa am sunu constitution loo xam ni dafa ni wàllu citoyen bu nekk la mën nga wax sa xalaat ci réew mi mën nga wax sa xalaat ci politique publique yi mën nga wax ci xalaat li xew ci réew mi yépp sa loolu kenn waru la ko mën a tere wax boobu nag du waxu gémmiñ ñi rek mën nga aussi mhm. ànd ak ñi nga xam ne dangeen bokk xalaat ngeen bi manifester ci loolu ngeen gëm ngeen wane ni lool la loolu itam yoon wi daf ko may se dañu seetlu ni temps yi ñu paase yooyu nga xam ni constitution bi daf ko may citoyen yëpp mhm. euh, ni ñuy wax njeetu réew mi daf ko fuqati ci citoyen yi ba nga xam ni liberté d'expression amatul liberté de manifester amatul euh, ba sax ñii di manifester eggal nañ leen foo xam ni tiire nañ seen ko ba rey ci ay nit loolu yépp dafa nekk loo xam ni war nañ ko dàq sunu réew bu ñuy liggéey nag ne dañuy tabaxaat démocratie ak ak réew yoon pour que loolu bañ fi amati mukk ci biir Sénégal loolu ñu tax a jóg looloo leen tax a jóg est ce que li nga fi wax yépp waxtaan ngeen ci ak candidat yi wala ñi leen taxawal waa li ñu jëkkee dañu wo mouvement société civile y lañ njëkk woo ni leen nañu conclusion assise nationale ak recommandation commission nationale de réforme des institutions ñu daje un séminaire boo xam ni def nañ ko bésu lëmm boo xam ni ñoo assise ak exposé ñu discuter ko ba ñëpp partage ni lii moo war a am ci réew mi loolu la ñu jëkke bi ñu paree ci loolu ñu ne léegi nag war nañ dem ci public bi ñu organiser conférence publique woo ci candidat yi bi ñu présenté li nga xam ni moo gën ci séminaire bi ba pare ñu jox parole yi candidat yi pour ñoom it ñu wax seen xalaat waxtaan woowu moo indi juboo ci li ñu war a def ñu tudde ko pacte pacte de bonne gouvernance et de gouvernance démocratique pacte boobu nag li nekk ci biir mooy li nekkoon ci charte de bonne gouvernance démocratique ak li nekkoon ci biir avant projet constitution bu Sénégal loolu moo nekk ci biir pacte bi loolu nag comme que d'accord nañ ci ak candidat yi dañu waxoon candidat yi il nga nañ ci signé candidats yi nga xam ñoo bokk ci élection yi 11 signé woon nañu 11 kon am na yu signé wul yi signé ah euh, candidats yi dañu bari mais les euh, li li mooy candidat yi nga xam ni yaakaaroon nañ ni mën nañ exfilé ñëpp signé woon nañ sauf kenn muy Amadou Ba ah. bu dul Amadou Ba hmm. candidat yi ñu yaakaaroon yëpp sa boo demee ñi génn premier ba sixième tey moom rek moo ci signé wul woon hmm. ci des ñëpp signé woon waaw kon basiru Diomaye Faye signé na. Basiru Diomaye Faye signé na. Euh, signé na bok na ci ñi jëk signé sax. ah oui waaw bok na ci ñi jëk signé. di ngeen ko soumettre pacte bi à travers certainement son mandataire. waaw mandataire mo signé ñëw ko. ok ndax booba temps mom mënul won signé mi won ci kaso bi. donc dafa yoni mandataire boo xam ne moo ñëw signé def déclaration à son nom woné ni ñom pacte bi ànd nañ ci bu wër wër. à 100 waaw ànd nañ ci bu wër wër. amul réserve. amul ben réserve ñu amoon ci assise yëpp. Euh, déedéet kaw kenn déggu fa réserve. ok waaw. légui pacte bobu suñu ko doxalé lan mo wara a nekk les premiers résultats pour les sénégalais gannaaw légui fal nañu président Bassirou Diomaye Faye. waaw ah, pacte bi li ci nekk am nañ ñu tuddee onze principes ci pacte bi. sa loolu bu ñu seetee suñu réew ni muy doxee pacte bi li nekk ci biir yépp mooy rëq-rëq yi nekk ci réew mi moom lañu ñu seetlu yan la ak naka lañ ngeen di faje bu ñu jëlee bi ci jiitu mm-hmm. ñu ko tuddee ko hyper présidentiel yi dañu ni mënatuñu continuer ak réew moo xam ni dañuy teg ci bopp bi koo xam ni lu ko neex def lu yoon ak lu dul yoon parce que dañu dajale doole réew mi yëpp teg ci loxoom loolu dañ ko war a dindi ci réew mi sa loolu pouvoir yi nga xam ni président bi daf ko yore ba nga xam ni day dominer assemblée nationale dominer justice bi organe de contrôle yi nekk ci réew mi yëpp mu teg ci loxoom mm-hmm. yooyu lañu ñu war a dindi bu leen dindee bi président am ba léegi dootul bokk ak pouvoir bi doon am bi bu loolu mooy lu ci jiitu li ci topp assemblée nationale war nañ ko gën a dooleel mm-hmm. ba nga xam ni sa dëgg-dëgg li nga xam ni mooy waru garam mun ko def ndax peuple bu élire assemblée nationale élire président dafa élire koo xam ni daf ko jox pouvoir exécutif bi élire koo xam ni ni ko yow yaay saytu li kii di def ndax méngoo naag li baax ci réew mi mbaa li baaxul ci réew mi léegi nag assemblée national saytu boobu defu ko ni mu ko ware ndax doole jiñ ko jox aussi dañ ko limité maanaam bu ñu jëlee benn exemple rek Euh, gouvernement bi bu ñëwee teg budget pour que député yi fexe ba budget boobu yëngatu ci dara day jafe ci député yi ndax dañ leen di wax proposition boo leen def war ngeen wax xaalis yi naka lay demee ba nga xam ni yow mënuloo génne benn xaalis bu bees boo xam ni da koy teg ci budget bi mhm. kon doo mën dar def benn proposition ñu ne loolu war nañ ko teggi ba député yi am ay marge yoo xam dina leen may bu gouvernement bi dara ñu ne lii dañ ko bëgg a def remplacer ko waaw assemblée nationale la aussi justice bi war nañ fexe ba président de la république dootu di teg loxoom. loolu li ci conseil supérieur de la magistrature président de la république mënatu ko présider magistrat yi Bop, conseil constitutionnel président bi président moy conseil bi mba ko xamni magistrat yi nañ ko ba tek ko sen bop wa ne président moom mënatu ko def ndax tutelle boobu euh li aussi moy dañ ni citoyen yi doyatul ñu wax ni ci constitution bi bi liberté lañ am ak bi liberté lañ am il faut que ñu am un juge de liberté ndax juge de liberté mooy tax bu état la xañee loo xam ni yow yaa ko moom mën nga ñëw ñu delloo la ko ci sens sa loolu fekk amul mm-hmm. aussi dina jafe ñuy respecter droit citoyen yi ce dal ci waxtaan c'est la nekk. citoyen bi assemblée nationale dolel justice bi ba pouvoir exécutif du monde a defati lu ko neex. li nga wax président Bassirou Diomaye fay mi ci engagé wu ban la pour appliquer ko. ci sunu les 300 premiers jours ci lañu wara régler problème yoyu xëy na nag am na problème yu mën a gaaw regle am na problème yoo xam ni dina laaj jot pour régler ko am na yu ci jiitu am na yoo xam ni dañu yaakaar ni ba léegi euh, réforme constitutionnelle mën nañ ko waxtaanee lu gaaw dugg ci ndax am nañ ba pare avant projet bu taxaw bu fekkee ni itam bëgg nañ ci di lii maa ñu def ci lii mën nañ ko waxtaanee mais am nañ avant projet ba pare

am na yoo xam nag euh, di disons que yombul ndax dañ ni du état rek moo war a changer dëkk bi bu ñu seetee nu sunu dëkk di doxee li état di doxale sax boo moytul sunu société ni mu mel aussi moo koy pousse ci loolu kon nag sunu société itam war nañ fexe ni mu changer su société boobu bu ñu bëggee mu changer il faut que ñu am citoyenneté bu bees citoyenneté boo xam ni day xam lan mooy droit am wante xam la aussi lan mooy responsabilité citoyenneté boo xam ni du dee élire rek kenn ni ko bàyyi ko muy def ba lu mu neex ba beneen élection il faut que mu am espace yu ko may muy contrôler ki mu élire mën agir ci ci mu élire li ñuy ware citoyenneté active loolu foog mu am waa yo boobu nag du loo xam ni mën nga ko tabax benn bés liggéey bu laaj bu mag la laaj hmm. am na ay réformes institutionnelles yoo xam ni ñooy créer espace initiative pour citoyenne mais pour que nit ñi changer seen xalaat seen doxalin seen référence éducation bu mag a mag la boo il faut mu am